asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel màggal Touba édition 2019 xibaar yi nag ñu doore kook nemmeeku yi nga xam ne kilifa yi nekk ci réew mi ñu ngi wéy di ko amal fii ci Touba Mbacké di ñëw di ziare si xalif de des mourides mu Mountakha Mbacké Bachir waaye it ñëw ndokkeel ki nga xam ne moo jiitee comité d'organisation bu màggal gi di Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr ki nga xam ne def na ko moom moo di sa Seck moom ñëw na yeesalaat ak taalibeem waaye waxtaan ak ki nga xam ne moo di Serigne Bassirou ab Mbacke Abdoul Khadir ginnaaw bu mu ziaree Serigne Mountakha Mbacke Bachir ñu ànd teewlu kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko. nee na ñoo ngi yëkkati kàddu nuyoo ya gën a kowe. di ko jébbal ni nga ko waxee suñu sëriñ suñu xarit suñu wóllëre koo xam ni yàlla moo jëmbat cofeel suñu diggante di Serigne Bass Abdou Khadir. di ko ñaan mu jottali ñu ko sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ak bépp mbokku taalibe. nee na nuyoo boobu nag la muy rëy rëy ak délégation bi nga xamante ni moom la àndal ak autorité yi nga xamante ni ñoo ma àndal ak responsable yi nee na mi koy jël nag di ko jébbal xaritam wala réem wala réem gu yàgg goo xamante ni sëñ bi rek moo ko motivé sëriñ bi lekk lañ koy seereel muy sëriñ Bassirou moom sëriñ du Khadir. di yeesal ci moom suñu cant ak suñu taalibe ak suñu cofeel nee na di yeesal ci moom nag sunu cant ak sunu taalibe lu njàgg a dégg ak sunu cofeel ci sëriñ bi di ko jébbal sëriñ Basiru di yokk suñuy ñaan ci suñu boroom nee na di yokk nag suñu ñaan ci suñu boroom yenn bi nga xam ni suñu boroom yen na ko ko sëriñ Touba yen ko ko nee na yen bi nga xamante ni ya suñu boroom yenn na ko ko sëriñ Touba yen ko ko te yaakaari taalibe yëpp nekk ci. nee na te yaakaari taalibe yëpp nekk ci. yàlla na woyof tooy ci moom. nee na yàlla na woyof tooy ci moom. te xam nañu ne waajtaay wi ñu ko waajal bi bi laataa nee na te xam nañ ni waajtaay wi ñu ko waajal laata yen bi yegg si. dana yombal mu woyof ci moom lool. nee na dana yombal mu woyof ci moom tooy. man nag sama cofeel rek laa ñëw fedd li si. man nag sama cofeel rek laa ñëw fedd li. ak sama ziyaar. nee na ak sama ziyaar. ak ndokkeel ko ci bis bi. nee na ak ndokkeel ko ci bis bi nag. ndokkeel ci mbokku taalibe yëpp. nee na ndokkeel ci mbokku taalibe yëpp. ñaan suñu borom mu yàgg noo kattanal. nee na di ñaan nag suñu borom mu yàgg noo kattanal. saa yu egsee. nee na saa yu egsee. ñu mën a ñëw jooxewaat lii ñu fi dox si. nee na ñu mën a ñëwaat jooxewaat lii nga xamante ni moom lañ fi jooxe tey. mu nekkoon kàddu yi sa Seck yi nga xam ne yëkkati na ko fii ci Touba ci ziar bi nga xam ne. mi ngi doon amal ci wàccaayu màggal gi ba léegi ci nemmeeku googu ki nga xam ne moo di ay Aïda Mbodj ancienne ministre moom it ñëw na fi nga xam ne moo di ci Touba Mbacké fii ci résidence Khadim Rasoul ginnaaw bu mu ziaree mu Mountakha Mbacké Bachir ñëw na ci Serigne Bachir Mbacké Abdoul Khadir moom mi nga xam ne moo jiite comité d'organisation bu màggal gi moom it mu ndokkeel Serigne bi ziare ko waaye yeesalaat moom it ak taalibeem waaye am kàddu yu seede yu am solo yoo xam ne seede na ko ci sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadir ak ki nga xam ne moo di xalif général des mourides sëriñ Mountakha Mbacke Bachir ñu ànd teelu kàddu yooyu. ci dérangement bi ndaxte damaa waroon a toog laxasaayu taxaw ci buntu kër gi di la teerule gan ñi ndax loolu moo fi jariñi fii nii ñu toog ci sa wet lu fi nit indi lu dul ak taalibe gisoo ko ak taalibe rek la fi nit mën a indi mu safe ñun nag loolu rek la ñuy ñaan yàlla nga ñaanal ñun ñu sax ci loolu nga ñaanal ñu itam maa mbooloo mii ñu àndal te gor yoo xam ne wuti wuñu fenn lenn man mi am doy na leen lu ma nekk doy na leen yàlla saxal ñu ci ak taalibe ñu dund ba lépp lu ñuy def ci sa bisu maam bi kenn bañ ñu cee ëpp sama digganteeg yow nag man dootuma ci dellu ndax am na loo xam ne sañ naa koo wax am na loo xam ne sañuma koo wax waaye sañ naa béral ñëpp ni maa ngi ñaan yàlla ñi may ñaanloo it maa ngi leen di ñaanloo yàlla ñu ñaanal suñu sëriñ bii toog yàlla dëgëral ko te bàyyi ko xelam ndax lii nga xam ni da koo yor mu diis yàlla téyel ko jàppale ko ndax daf di sagu yoon wi ndax su fekkee ni macha allah waxtu waa xamee ni yoon wi nit ñi war nañoo war nañoo wax moom kot mooy wax ak responsabilité am wax jooje macha allah yàlla dimbali ñu ba ñun ñi nga xam ne dañ cee bokk muy sunu fierté comprendre nit ñi ba bu waxee kenn ku nekk jàpp ni man de maa wax sëriñ bi lii pour mu wax ko loolu ndimbalu sunu borom dong la kon nag yàlla mi nga xam ne moo la teg fii tànnal la sa maam yàlla moomu yàlla na la taxaw sa kilifa gii nga xam ne mu ngi ci sa kanam. te ngeen yàgg ànd di liggéey yàgg ànd di dox ba tey mu jiitu ca loola ngeen doon ànd di ko doxal ay nit mu jiitu ca nga xam ne daanaka rek xam nga lam ca bëgg xam nga lam ca euh, bañ xam nga lam ca seexlu xam nga lam ca nangu te ngay nit ku sell macha allah boo xam ne seede nañ ko nga seexlu lu bari te ñun ñu dem ba xaw a xonet ci yoon wi ba kenn doy ñu ci nga doy ñu ci nag sëkk loo wax mu doy ñu ndax du ñu def ñun ci suñu bopp loo yëgul du nu wax loo yëgul dinañ diisoog yow lu bëree bëri te waxtu ñu diisoog yow rek am bunt. mu nekkoon euh, kàddu yi nga xam ne euh, soxna Aïda Mbodj ci yëkkati na ko ci kanamu Serigne basiru Mbacke Abdoul Khadir ci nemmeeku gi nga xam ne mu ko doon amal fii ci Touba. mbokk yi ne màggal euh, tuuba ne couverture médiatique mboolem télévision yi rajo yi presse en ligne bi ñoom ñëpp dañuy bëgg a ñëw ngir couvrir màggal gi ba tax na bi nga xam ne. ñoo yor fànn googu muy euh, ñi dénk euh, culture ak communication jamono bi li nga xam ne moom lañ jotoon ci accréditation daanaka toll na ci 1400 maanaam junni ak ñeenti téeméer ñoo xam ne bëggoon nañoo couvrir euh, màggal gi waaye ñoom nee ñu seen accréditation yi dañ koy limité ci junni rek li nga xam ne noonu lañ ko defee woon at mi weesu. loolee am na waxtaan woo xam ne seq nañ ko ci ñenn ñi nga xam ne ñoo yor liggéey boobu muy Serigne Abo moom Serigne Fallou As bokk ci commission bi nga xam ne ñooy dalal taskatu xibaar yi. ñu ànd teewlu kàddu yi nga xam ne taataan nañ ci moom. ñun xam nga ñun feen dëkk Touba leen juddoo feen ñeeroo fi leen di yëngu tamit nag xas day ci loon yëngu waaye lañ si léegi dañ see boole bagage murid parce que léegi comme léegi murid dañuy takk ay maxtu ay noma baat ay asmaaw loxo moo tax ñu boole si yëpp ngir yaatal liggéey bi ñun nag toujours fi leen jaay ci jumaa ji kese ab laat mooy suñu bërëb maa ngi sama gars yi ñëpp leen jaayee bokk na ñi nga xam ne dañoo jógee ay Dakar wala Thiès wala yeneen dëkk yi ñun toujours ñoo ngi fii dañu fi jaayee dañu fi yëngu bagage yi waaw ngi sant yàlla de ñoo ngi ci marché bi de wax dëgg yàlla di ci yëngu ñun nag macha allah xaw nañ ñoo ngi sant yàlla de waaw ñoo ngi sant bu baax a baax a baax. ñu la doon laaj maanaam euh, fi ne nii ndax clients yi ñu ngi ñëw bu baax a baax wala ak tamit euh, tissu yi ban la ci mbokk taalibe yi gën a jël ci màggal gi. waaw clients yi moom ñu ngi ñëw moom waaye xam nga fi mu ne lenn la dafa am waxtu ci ginnaaw tuuti ay 20 jours ci ginnaaw la gënoon a xumb gënoon a bar ndax léegi téere yi ñu bëri dañuy baare wala dañuy ragal a xotti duñ ñawlu waaye wax dëgg yàlla sant nañ yàlla bu baax sant yonte bi sëñ Tuubaa ah, li gën a dox nag ci tissé yi mooy bassin brodé jipuru coton bi mayluus waal paquet yi wax bay fali ak wiis bi comme bii nga sol ak bassin riche bassin Allemagne deuxième choix wax dëgg yàlla boo amee bagage daal macha allah jaay moom macha allah. fi na ne moom li gën a am importance daal mooy kaas ay bagage si kër daal ak ay ndugg yi prêtre bi moom moo gën a sust moo gën a taxaw ndax léegi ñu bëri ñu ngi ci marché bi waajal marché bi ñii ñu ngi ci ndugg yi ñii ñu ngi ci ndab yi ñii ñu ngi ci matériel yi kër yi daal fi mu ne moom exactement moo gën a taxaw. waaw alhamdulilah client yi moom ñu ngi ñëw franchement ñu ngi jënd bu baax wax dëgg yàlla am nañ fa ay bagage yu xéewale client yi wax dëgg yàlla ñu ngi jënd bu baax a baax a baax moom. tubaarkàlla macha allah non prix yi moom loo am rek am ko bon am na 5000 ba 15000 waaw loo am rek moom boo ñëwee da am loo toolool daal waaw dëgg yàlla. te yàlla rek di kontaan ci ndigalu sëñ bi ndax depuis ba sëñ bi waxee loolu ba tey ñu ngi doxee ndigal daal client yi nag ñu ngi ñëw ñu ngi sant yàlla bu baax vraiment liggéey bi dox na lool daal ñu ngi sant nañ bu baax a baax a baax ndax. ku sant daal doo si gor ndax sant nañ lépp neex na ñaweet en tout cas comme ni ko sëñ bi bëggee ñu ngi koy defee noonu jigéen ñi vraiment fekk si nañu si di ñaw lu ñaw lu yiwee daal ay robb lépp daal mën naa dem fu ne daal sant nañ ci yàlla loolu daal ndax ndigal moom jëfee rek kon ñu ngi ñaan sëñ bi yàgg fi daal te yàlla rek di kontaan ci ndigalu sëñ bi ndax depuis ba sëñ bi waxee loolu ba tey ñu ngi doxee ndigal yi daal clients yi nag ñu ngi ñëw ñu ngi sant yàlla bu baax vraiment liggéey bi dox na lool daal ñu ngi sant nañ bu baax a baax a baax ndax ku sant daal doo si gor ndax sant nañ lépp neex na ñaweet en tout cas comme ni ko sëñ bi bëggee ñoom ngi koy defee noonu jigéen ñeet vraiment fekk nañu si di ñaw lu ñaw lu yiwee daal ay robu lépp daal mën naa dem fu ne daal sant nañ ci yàlla loolu daal ndax ndigal moom jëfee rek kon ñu ngi ñaan sëñ bi yàgg fi daal ak bépp jullit non euh, ñu ngi ñawlu ay garaamu bu yiwee ak i rob moom la jigéen ñu bari ëpp mu la ñuy ñawlu ay rob ak i garaamu bu daal moo ëpp daal ci màggal ci otage yëpp moom la ko jigéen ñi def fas yéene cee liggéeyal sëñ Touba daal. te prix it nag par rapport ak daaw wax dëgg yàlla ren la gën a xéewale ndax daaw heure bi daaw ñu ci ay douze mille cinq cent ay douze mille ren nag alhamdulilah bi ci gën a gën a seer huit mille sept cent cinquante mooy original bi am na huit mille am na sept mille cinq cent am na sax sept mille pomme de terre ak soble yëpp a ci yem pomme bi par rapport foofu la toll pomme bi sax moo xaw a gën a wàcc ndax am nga am na ay huit am na huit moom prix yi gën a kawe moom itam te bari na ko wax dëgg yàlla macha allah par rapport ak daaw daal wax dëgg yàlla ren moom prix bi xaw na baissé ndax daaw ñu ngi ci ñu ngi ci 12000 alhamdulilah jënd Tuubaa moom xam nga rek ñaa ngi jënd bu baax a baax a baax pësteefu ci lool nag wax dëgg yàlla lii moom am nañ ci yor bu rafet ne dana doy wax dëgg yàlla am na ci dëkk bi tubaarkàlla moom wax dëgg yàlla